ndax benn nit sax ëpp na mais juróomi nit ñu ci faatu télévision yëpp ñooy dagg seen programme yëpp. di wax ci accident boobu lu ko waral lu ko sabab fan lañ jëm yeneen ak yeneen mais léegi ci Sénégal dem nañ ba même ñun ñii suñu bopp ñun journalistes yi buñ ci waxee cinq minutes après pare nañ ci. ñu wax ci leneen ndax leneen moo mooy gën a yitteel nit ñi. mais quatorze personnes treize personnes. quatorze personnes sax la ñu wax ñu faatu. mais euh, Ablaye naa mooy def revue des une. Mm-hmm. wàññil journaux yi nga xam ne moom lañ jël def ko à une dañ koy compter. Mm-hmm. soxlu leen. tey lan la ñuy wax wala peut-être benn kii bu ndaw lañ ciy def ci. Mm-hmm. appel à la une. tey lan la ñuy wax enquête a ngi nii Khalifa Sall Aminata Mbengue Ndiaye Macky si loin de Dakar mais si proche de Nangam réaction mitigée des familles ak indemnisation. alors qu'il y un accident où quatorze personnes per perdu la vie fukki nit ak ñeent faatu nañu ci benn fan ci benn waxtu mëtu ko sax ci ay saa ci benn accident la circulation Kër Madiabel nga jóge Koungheul ci yoon bi mais ñaata accident moo am ci yoon bi fi fi nga dëkk euh, Amir chaque année nga dégg fa ay accident yu dul ci te accident yi gën a metti tamit ñu koy dégg si yoon boobu mais il faut qu'on trouve des solutions par rapport à cela mais solution mais solution boo xamee du doon mbirum populisme euh, ministre yëpp ñëw taxaw ci accident bi waaw lii plus jamais ça plus jamais ça xoolal buñ ci paree pare nañ ci et ça ça ne de pas d'aujourd'hui ah yàlla suñu borom may ñu xolu muñ rek te te mosal ñu ci tali bi. amiin balaa ñu jox Baye Ablaye ak